براري باغي من الأمراض وكبرا عن كارب الكرام له سكريانا آياتي أبدا خديما فاز بالآيات أذكر شكر الذين شركوا من أجله ولجلال خربوا خذ آياتا لا ترى لخير معجزة بعد الحسن خير يجاد الجواد بالجاد وسور لي يكون سنخيادي آيات الباخر بلا إماتة ولا تناسل ولا سمات أعدادي الباخي كتاب الأسمات ولا أولاق كل من تعسم أني جزاء والدتي والوالدة خيرا كثيرا لا يزال خالدا نفعني المستوى شفيه الذي تسليم نف الأنفي داخلاني إلى سكور من سقر لي خلق بقاء ساما ربي مالكي قليلي والحبيب وحد ما أمي يدي يتضيب براني من كل عيب وبرم وغالي سيادة في كل خرل بارك من يوم Serigne Saliou Diagne mii nga xam ni taalibe la ci kër gi waaye ba noppi di jànkatu xasaayit di nit ku baax ku yàlla baaxal sëriñ bi nee na mi ngi leen di sant bu baax ndax nee na daara jikat ak njabootu boppam képp la ñoo fa nekk. tey lii ngeen def sëriñ bi woote yéen ñëpp ngeen bàyyi seen ite ñëw fekk si ko fii sëriñ bi nee na loolu xolam sedd na ci guy nee lii muy def nag di ñaan ngir jëmm yàlla ak yonent bi ak sëriñ Touba mi ngi ñaan yàlla kartanal leen ba lépp loo xam ne si yéene ngeen ko ngeen def ko ni ngeen ko bëggee yàlla def leen ay mag mag ñoo xam ne mag ñoo amu am na mbégte lool ci ak li nu toll ndax waxtu woo xamee ni dara lu mel nii am na ci kër gi waxtu wu ci ne bàyyi ngeen seen i ittee jógee ci ay gox yu fasantikoo ñëw fekk fii ci daara alxuraan ji kon nee na mi ngi leen di sant bu baax di ñaan yàlla na yàlla àggale leen ci barkeb Serigne Touba. tuk boppam bu ñu ñëwee fekk si ko xolam dana ci sedd lool xelam dana ci gën a dal kon yàlla na yàlla leen kon loolu la Serigne bi wax ne nan leen sant ba ñëpp xam ni ñëw ngeen waaye moom mi ngeen ñëwal yëg na ñëw gi ngeen ñëw si moom kon jërë ngeen jëf ñoo ngi ñaan yàlla luñ fi jàng ci alxuraan jàng ko fi ci xasida tudd ko fi ci yàlla yàlla ci yàlla jotale yool ba mag ñi dem te da doonu jàmm ci barkeb suñu xam sa tukkee ñu ngi ñaan yàlla yàlla doon di leeral soxna Faati mi ñu yónni nag ñoom def nga ko ba mat sëkk kon nee na ñoo ngi ñaan ci barkeb sëriñ Mabey sab taxawaay ci lislaam yàlla ko yàlla àggale nee na sedd na guy am na mbégte lool te noonu mu la sant nag noonu la sant mboolem koo bokkal sëriñ Amsatu waaye mboolem koo bokkal sëriñ Mabey ndax ku ne xam na ni buntu kër sëriñ Mabey moom nee naa kurus la boo jàppee ca bopp ba jàpp nga ñëpp waaye nag bala ngaa jàpp ca bopp ba xoolal ña ngay jàpp ñooy ñan nit yi arxuraan lan ñu sell nit ñoo xam ne nee naa arxuraan bu doon ab gàtta ku ko ren di fay leen dañ leen ko sàmmloo waaye li leen war ci lu baax lépp ci la nekk kon soxna Faat nee na loolu moo tax mu yëkkati kàddu cant di ko biral mbooloo ku fi toog nga xam ne sant na gërëm na te mi ngi ñaan yàlla àggale la ndax bu la yàlla àggalee fa nga bëgg àgg mbooleem ñoom li ñu soxla woon ñoom ñëpp da ko def ndax yàlla dénk na la xol bi. nee na di ko wax dalal jàmm nee di ko wax kër gi sa kër la nee na di ko wax ni ko njaboot gi nag sa njaboot la nee na dan laa téyel rek nee na yaanu yilif nee na ilif njaboot gi yëpp nee na kon yow soxna Faati nee na yaay borom kër gi neena na ñoo ngi nuyu bu baax sëriñ Saliou Sall mi toog nee na di sunu mag di sunu xarit nee na di nuyu soxna Ngoone Gueye mi moom di sunu mag di sunu lépp ak mboolem njaboot gi nu àndal nee na soxna Fatim nee na sëriñ bi moonu boole nee ci boole gu wér nee na bi nu tu tànk nee na ñëw àdduna neena moom mii lañ ko booleel nee na nga xam ni moom moo waroon a ab aawam nee na ginnaaw bi nee na ginnaaw bi ci la ko weccax ndikoonte mook soxna Ami Gueye moom Baye Serigne nee na mu wàcceel Serigne Khadim soxna Amy Gueye wàcceel ko nee na loola moo waral cër boobee dem foofa te nee na loolu nag lu yàgg la nee na kon lool du tey nee soxna si bi mu ñëwee ci dëkk bii nee sëriñ Serigne bi ko fi ci ndigalam nee na moom rek la ko booleloon. nee na amul kum ko booyaloon ci dëkk bi nee na ku dul soxna Faati nee na ginnaaw sëriñ Touba nee na ñu taxawu ko yiir nu jàppale nu nee na ba àdduna deme nii nee na kon soxna si jërëjëf nee na ngi lay sant di la gërëm nee na yow ku réeb xol nga nee na ku yaatu mbir nga nee ku bëgg lu baax nga sëriñ bi nee na mi ngi seere ci sëriñ Touba nee na sëriñ Moustapha Lo nee na yàlla na ko yàlla dolli ay xéewal fa mu tëdd nee na bi mu fi ne nee na yow soxna Fatim mii nee daawoo def dara te diisoo woo ci ak moom te nee na booba borom këram a ngi fi nee na ba tey jii nee na amul looy def te woowoo sëriñ bi téléphone ni ko dama bëgg nu waxtaan ci nangam nee na bu ko nee ma ñëw mu ni ko léegi yow mënatoo ñëw ndegam téléphone yi yaatu na nan ci waxtaan nee na ñu daal di waxtaane lépp nee na ba biig ba démb nee na ma nga woon Dakar nee te umpulewul la ko fa te nee léppam noonu la mel nee na umpulewul dara ci moom nee na nit ku baax la nee na jàpp ko lool téye ko lool yéene ko lool nee na kon moom géy moola mënta fay nee na yàlla na yàlla taxaw te téyel nu bokk gi téyel nu kolëre gi téyel nu ndénkaane leen sëriñ bi boole nee na sëriñ bi bis bi mu nu mujj woo muy Seex Amsatu nee na ba at ma laaja delsi nee ca wuy ji boroomam mu woo ko nee na dajale leen yéen ñaar daal ni yéen ñaar ñii dama bëgg ngeen ànd nee na wax lu bari soxna Faati nee ci num la bëggee num la fonkee nee na ba wax lu yàgg nee na ba alal jooje dugg sa loxo nee na da nga caa génne wàllam ñëw jox ko ko ni ko ñaanal ma barke wàcc ci nee na kon ba mu koy defal nee na ñoom ñi ay tut tànk lan nee na ba ci lal bii muy tëdd nee na soxna Faati mii moo ko jox nee na kon yéen ñaar ñii bu leen dara réerale bu leen dara xajale nee na bu àdduna yëngu ba ngeen yéen réeroo nee na saa yu ngeen ko defee nee na sedd na sama xol nee na saa yu ko defee Cheikh Moustapha nee na yaa ngi ci ak bëgg su am satu daal ni soxna Fatim saa yoo ko defee yaa ngi sama bëgg kon na ngeen ànd nee na noonu la waxoon nee na yow soxna faat loolu yaan ngi koy sàmm bu baax nee na man mi jot li maa matalewut waaye waay yow matale nga téye nga ko bu baax nee na yow ku mag mage dara nee na bis bu set nga wane nu li nga nu mage muy am xel ak sa wërsëg ak sa jot ànd ko ak ñun ba mat sëkk kon nee na yàlla na fay guddal soo fan wéral say cër àggale yéene yi jërëjëf Guèye. إلا الذي أبابه لن تنفجا هو كريم الأكرم المكرم ولي من لا يريم الكرم محمد وسيلتي وجنتي عن كل جوع وأذى وجنة ينغاد من يسلام أن سلام لا دياره وأفضل الملا رسولنا أحمد كل الأخلاق عليه خير الصلوات الأخلاق كل الله